Milana yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall. yàlla bu baax jëlu suñu sang Seydina Muhammad wala ñu bokk teewlu te ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ndax lii mu woote de bis bu am solo la boo xam ni muy baatub laa ilaha illallah ndax baatub laa ilaha illallah ku ne xam na ni mboolem luy gémmiñ di wax rek baat boobu moo gën a kawe maanaam kenn dara génn ko ci lu baax maanaam moo ëmb mboolem lu baax. muy xasida yeeg alxuraan yeeg lépp rek dara génn ci baatub laa ilaha illallah kon bu ko wootee ngir dimbali ci jaam ñi loolu dañ ko war a ñaanal ñun ñëpp mu yàgg fi te wér te xam ni suñ njariñ la ñun ñëpp yal na ko fi yàlla yàggal te wéral bi xormati xuraanu karim wala ñu bokk teewlu tey wax amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 bisimillahi rahmaani qul ya ayyuhal kaafiruun laaxul ma taxbiduun wala antum xaabiduun wala xanaxad ma xabatum wala antum xaabiduun maxlu lakum diinukum waliya diin bisimillahi rahmaani rahim isaa jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaxfir innahu kaana tawwaaba bisimillahi rahmaani rahim tabat yada abi lahabin wattaba ma xana anhu maaluhu ma sayasla naara saata amraatu ammaat fi jiidu amri mazli bisimillahi rahmaani qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani waxul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu ahad bismillahi rahmaani waxul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu ahad bismillahi rahmaani rahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri nafaasaati fil uqad min sharri haasidin idhaa hasad bismillahi rahmaani qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri waaswaasi xannaas allazii yuwaswisu fii suduuri naas min aljannati wannaas bismillahi rahmaani rahim sadaqa allahu al-aziim wa ballaqa rasuuluhu nabiyyil mustafaa al-kariim wa nahnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina ash-shaahidiin اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سررت فيه من الآيات وسكرنا بما ضررت فيه من المسر كفر بالتلاوة عنا سيئة إنك مجيب دعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوة من أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تقرير أو شيات أو نوضان أو تحويل إلى خير ما أنزلته أو تحجير عند التلاوة أو كسل أو زيق اللسان أو وقوف بخير وقف أو إدخال بخير مدغم وإزهار بخير بيان فكت من على التمام والكمال والمحاسب من كل حال وارزقنا فضل من خرم محد حقها مع الأهدى والخلب واللسان وحنا به خير والسعادة والبسر والأمن ولا تقتمنا بالسر والضلال وتبهنا ونبهنا قبل المنايا منا من القفل والكسلان وامنا من عذاب القبر ومن شعر المنكر وكل ديدان وجوهنا الى البصر واحتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميساننا بالحسنات وثبت اقدامنا على واسكنا وسط الجنان وصنع جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وكرمنا بلقاء غديان اللهم اجعل القران العظيم ربي قلوبنا وجل احزاننا وساب همومنا وخائدنا وصائقنا الى الجنه النعيم اللهم اجعل ميساننا في الوسط ومصائبنا في الوحدة مصبانا وسلمة ودللنا في الخيرات وانفسنا في الفتنة وسنا به من سنة وأهوى كيد أهداء يا رحمن يا رحيم اللهم اقرم بسعادتنا عجلنا واختم بسعادة عملنا واحرم بحبيب قدولنا واسننا واجعل الى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسوي سجال افرق على سنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سعادنا واستقم بك سحرنا واتخاذنا وامن من الجود والخفيف بلادنا والسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما ترونه حلوله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام آمين اللهم بلغ ثواب ما خرجنا ونور ما طلعنا حضور في سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائي وأمهاتي وأزواجي وسريتي وأصحاب رضوان الله تعالى عليه أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم نبينا وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maaliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin tawir lana humlana sahhil lana amrana wa hab lana rusda tawfiq ya allah wa dammir lana kulla da'in tudu qabla al-wusul lana ya allah wa ansilana ya rabbana khalina hamma kana manna qablana wa hab lana al-hadaba wal mas'a kufana rabbana ihzana wa kufana ya barru ya alif ya mulu amru rasabi ansi sifaka ma kana dahi wa la tuhammilna bil tilai wa ansilna fama kana durri wa ansilna khana ma kana sabri wa ansilna hilma ma kana jahli wa ansilna judu ma kana وسقنا ما كان فقري وانزل سكر ما كان واسفي جميع مسلم اجل ثم فينا خوف سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على ginnaaw bi ñuy sante yàlla bu baax julli ci sunu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal di nuyu mboole mbokk yi nga xam ñoo fi teew yëpp kenn ko ne ci turam ak santam di leen siyaare bu baax nuyu bi ak siyaare bi nag ñu teg ko ci suñu jëwriñ jooju fi nekk muy sëriñ Ngounda Fall wax dëgg yàlla moom comme ni ko Assane waxee rek wax dëgg yàlla kilifa gu mat kilifa la waaye dafa tombé rek moom mbaax gi ak ak dal gi ak bëgg lu baax yéene ko ñëpp ndax nit bu nekkee ci lu baax di ko def day jàpp ni koy def rek moom koy defal yéene jooju ak dal googu rek lay am ba day day moom daa oyofal lépp rek waaye kilifa gu kilifa la ñoo ngi koy siyaar baax di siyaar bu baax suñu Assane Baye Fall mi nga xam ne tamit mooy jëwriñ Maam Cheikh wax dëgg yàlla nekkal na fi ñun ñëpp di yëkkati kàddu yu rafet saa yu ne ngir liggéey bi jëm kanam te saa bu ko yëkkatee day matale daanaka du jar kedd ca doole dara di bég loolu nag ci bis bi ndax bis bi day bis bu am solo boo xam ni comme ni ko sëriñ bi wootee comme ni ma ko waxoon léegi mu am solo lool ndax ku ne xam na ni baatu laa ilaha mun sëñ Muntaxa woote ko pour waa Sénégal gépp àndandoo di ko yëkkati ca Touba loolu kawe na lool ndax baatu laa ilaha illallah day baat bu oyof la ci tudd ko ci làmmiñ waaye ëllëg yombal xiyaam tam la ol meezaan maanaam dana dis gan na ci ay ci ay ci ay balance kon baat boobu baat bu am solo la boo xam ni nit ku nekk sax war nga di faral di ko di ko wax lu baree baree bari képp koo xam ne daje nga ak sëriñ bu mat sëriñ xam xam xam turu yàlla ba jukkil la ci baatub laa ilaha illallah la la la lu tolloog yow la nga méngool ba jox la ko mën naa defar sa àdduna defar sa àllaaxira kon sëriñ bi yiw yiw woowu ak yéene jooju moom la yéene jimlit ñi ak jàmm ñëpp su ko defee ñun ñëpp ñu mbokk ñaanal ko bu ko defee tamit li ci doolee ko mooy ñu gën a góorgóorluwaat bu baax ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ak fonk ko ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa mënta ñàkk maanaam boo xësee wax ne aslan aslantu nafsi moomatoo sa bopp maanaam bu sëriñ bi wootee da war a dem bu laajee danga ngaa war a joxe li nga yor moomu ñun lu ñu yor moomuñu ci dara lépp sëriñ beeku moom kon nag nañ ak maanaam temps beeg daaxat ak liggéey beeg lépp saa bu sëriñ bi wootee bu fekkee dëgg aslantu nafsi nga wax dëgg ci yow saa bu bi wootee loo jàppoon na ko war a bàyyi ñëw kon ñu fonkat daayira yi bu baax di ci teew di ci liggéey Sëñ Tuubaa bu baax moo fi des ci liggéey boo nekkee sa bopp une semaine ba semaine bi jeex ñu woo la ne la ñaari waxtu ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa nga nga wutal ko ngànt loolu sa ngàntal bopp la waaye loolu kenn wuru ko pour man kenn wuru ko mën amal ngànt waaw kon nag loolu nañ ci nan nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gën a góorgóorwaat ci liggéeyal Sëñ Tuubaa xam ni moo fi des ci liggéey su ko defee ba jot ñuy teel a ñëw daayira yi taalibe yi kenn ku ne fa nga nekk demal ci daayira ba la gën a jege lépp liggéey Sëñ Tuubaa la waaw su ko defee ñuy teel a ñëw di fi jàng alxuraan ak xasida yi di fi sikkar def bi kon ni ñu koy defee kon loolu ñoo ngi koy fàttali di ko fàttali suñu bopp na eh, été bi nga xam ne moom lañ jëm ñoo ngi ciy ñaanal ñëpp suñu borom def ci jàmm def ci taw tawfeex ju yaatu lépp loo xam ne jàmm mébét na ko ak nu mu ko bëggee ak nu mu ko yéenee yal na ko suñu borom defal te defal ko muy lu gën ci moom bi xoon mati xuraanu karim suñ mbokki julli yi nga xam ne barki démb it loolu mbir mi dal na seen kaw muy démb yal yàlla oyofal ko ndax am nattu la rek ndax olof Njaay day wax ne yàqule moo gën yàqu te nit ku nekk rek sa alal yàqu moo gën sa jëmm yàqu te nit ki maanaam feek moo ngi dund rek dara jomb ko ci kaw suuf kon na muñ na ñuy muñ tey gëm dogalu yàlla tey góorgóorlu te nekk ci yoon wa muñ ko defee rek incha lépp dana baax kon euh, kàddu yi wax di yàlla moom euh, tabarkàlla daal xam naa dañ ko yemale foofu rek <laughs> classe yi di yàkkamti nañoo dem dallu ji <laughs> waaw si Assane kàddu yaa ngi noonu wax di yàlla ñoo ngi jégalu lu baax mun sañeen mu gën a yaatu gën a kii waaye lépp mat na wax de lépp rafet na kontaan nañ baax daal wax yàlla jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina mi jàmbaari jaam ñi ñu ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo fii ci Touba Argentine di ci jiital jëwriñu sëriñ tuwaa ji muy Serigne Mortala Sall di ci toftalit suñu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo toog waaye nuyoo boobu ak ziar beeg yëpp rek dañ koy jël dëxëñ ko teg ko ci loxol kilifa ak jataay bi muy Serigne Gunda Fall mi fi tooge jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall di fi suñum Cheikh Ibra muy jëwriñu Cheikh Fall fii ci dëkk bi man ab lanti laa rek kon ñu ngi koy nuyoo bu baax Fall amuñu ndigalu nag yëkkati bi jox la ko nga wax ba pare ñuy door a wax déedéet ndax sëñ seen ndigal dañu ko fee jàngaloon dangay wax ba noppi jox sa kilifa mu tëj kon bu ko defee dañuy jàllale kàddu yi nga xam ne bëgg nañ koo jàllale te am yëg-yëgu jàllale ko bu ñu noppee jox sëriñ bi mu tëj ndax moom moo yor caabi ji kon moom moo war a tëj ñun ay gardien lañ rek kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amaat mbëgte ci ndigal lii nga xam ne moom la sëriñ bi woote muy sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir mbokk yi may wax ne keroog 1930 la 30 juillet 1930 ba suñu jàmbaar ja làqoo muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp oto ba ñu ko jëlee njaareem di ko yóbbu Touba Serigne Bassirou nekk ca biir oto ba moo ko jëlee njaareem yóbbu ko Touba kon nga xam ne Serigne Bassirou moomu moo dellu siwaat muy sëriñ Mountakha may wax ne kàddu yi may wax ma bëgg mbokki taalibe yi àdduna sépp bàyyi ko xel muy Serigne Mountakha bu yomal xiyaamee ndax waxoon naa fi kàddu goo xam ne dañ ne xool leen dof bi ma ngay ma ngay waxati bu may wax dañ naan dof baa ngi wax waaye nag naam jëmm ji mën naa dofe waaye bu ñu demee bay wax ñun ay ay waxande lan wu ñu sëfi wax waxande wu ñu sëfi wax nag ki ñu sëfi wax mooy Cheikh Ibra te moo ñuy wax loo xaw ma yéen a ngi koy fàttali comme déet bi fi sëriñ Isaaxa Mbàkke rakki sëñ Muntaxa ñëwee fii ci otel Bawane maa jóg jël micro ne leen xaw ma ku fiy fekk du yàgg dara diir bu gàtt sëñ Muntaxa dana doon sëñ Tuubaa dañ ne dem leen jël micro bi ab dof la bàyyi kii motut un mois sëñ Muntaxa doon sëñ Tuubaa waaye lii ma leen di waxee dama bëgg ngeen jàpp ko muy lu wér bu keroog yomal xiyaamee ba jinneeg malaaka teew fa kanamu suñu borom doomu aadama teew sëriñ Muntaxa yàlla dana ko fay ni ko yàllay fayee premièrement mooy li yàlla santaane yépp ma nga ca sëñ Muntaxa li yàlla santaane yépp ma nga ca kon yàlla moom dana ko fay fayu boppam sëñ Muntaxa jikko ja rafet na sëñ taxaa rafet na xol sëñ mun taxaa alalam du ko booleeg nit sëñ Muntaxa jullit àqi xatan la bi jumaa yépp tëjee senegal jumaayam tëjul kon kooku jullit la kon bu yàlla di fay yomal xiyaam dana fay sëñ mun Muntaxa yomal xiyaam bu Seydina Muhammad di fay jaam ñi dana fay sëriñ taxaa ndax li ñuy woote ci jullit yépp mu ngi ci sëriñ Muntaxa waaye yomal xiyaam bu sëñ di séddale it dana fay sëriñ Muntaxa waaye yomal bu sëriñ Tuubaa joxee Cheikh Ibra ba ne ko ramul jaam ñi it dana fay sëriñ Muntaxa waaye bu Cheikh Ibra fayee sëriñ Muntaxa ba pare ñun ñuy jaamaati jaamaati jaamaati di taalibey Cheikh Rafal ñun amel nañu njukkal sëriñ Muntaxa Mbàkke te danañ ko fay ndax lim ñu defal dafa rëy lii day lu rëy muy defoon nañ fi journée xasida boo xam ne dañ dañ dañ doon sant Serigne Touba mu dellu siwaat waat ne nañu def journée boo xam ne journée zikrullah lay doon sante ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul dina moo gore sëñ Muntaxa Mbàkke moo gore Serigne Muntaxa moo gore te moo dégg wax ji nag xam nga gars yi dañ naan dégg wax ji sëñ Muntaxa rek a dégg wax ji tey noir et blanc la def black and white muy sëñ Touba ak Cheikh xam ngeen lan mooy noir et blanc xoolal fële Cheikh Ibra dafa sol ñuul ma nga nële photo baa nga nee. jiital weex ci biir muy sëñ Touba Cheikh Fall sëñ Touba ne ci biiram sëñ Touba Cheikh dafa jiital weex muy sëñ Touba la jiital jël maam jël jëmmam moom teg ci kaw ma nga dafa jiital weex teg ñuul ci kaw sëñ jël Cheikh jiital ci biiram muy ñuul xool leen sëñ Touba dafa jiital ñuul moomit jël weex teg ci kaw muy jalaal ak jamaal kenn mënta dem bàyyi moroomam sëñ Touba ak Cheikh jëm ñaari jëmm kenn lan sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ñaari jëmm kenn mooy sëñ Tuubaa ak Cheikh amul xàjj amul seen sëñtuwaa Tuubaa bari na ñu bokkal bari na ñu sës rëkk ci moom waaye boo nee sëñtuwaa rek Cheikh Rafal nga ciy teg loola nag li ko waral mooy daa bàyyi woon boppam ndax murit bu dee booy jébbalu ñeent ngay yor ñeent ñeenti benn bi kese ngay joxe ñett yëpp nga téel ko sa bopp muy dangay joxe sa bopp ne def naa atlantu nafsi joxe naa sama bopp àdduna ak alaaxira seerafaal nag bi muy jébbalu si ci sëñ Tuubaa ñeent yépp la far joxe moom desewul dara muy dafa joxe boppam joxe boppam joxe bokkam joxe ngoram joxe alalam joxe doomam joxe léppam moom seerafaal desewul dara Cheikh Ibra rek a joxe lépp te desewul dara Seydina ba Seydina Muhammad wootee ne lu waay am na ko indi ñii di jël di desal ñii di indi moom dafa buub lépp serafal jikko jooju laa yoroon dafa jox léppam sëriñ Touba kon nag ñu ngi jaajëfal sëriñ Mountakha bu baax a baax a baax Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dana yàgg dana wér dana neex ndax murit la xalifa gi toogul ba mu fekk si ko da koo jëli sëñ Mountakha da koo jëli xalifa gi toogul ba mu fekk si ko da koo jëli kon nag yal na yàgg yal na wér moom Serigne Mountakha kull ku ne ci kaw suuf rek ngay jullit ndax nag moom xarit xarit xaritu jullit yépp la muy murit beeg tiijaan beeg xaadir beeg la ñépp a bëgg sëñ taxaa kon nag yal na yàgg yar na wér mun taxaa yal na fi sax dàkk lii mu ñu defal nii day barke maam Cheikh ma Fall Lamp ñun ñun jaam jaamaati taalibe yi nga xamante ne ni ñoo gën a suufe ci biir kër Cheikh Ibra muy sama classe gi yomal xiyaam danañ fay Serigne Mountakha ngir li mu defal Cheikh Fall ju baax ja kon maa ngi jégglu bu baax di wàcce foofu kàddu yi di tuub bu baax a baax nag di jégglu ndax mbégte la ñuy waxee kon bu ko defee rek ñu jox ki nga xam ne mooy sëñ bi kàddu yi muy maam Ngunda Fall mhm. déedéet ëpp naa def Fall ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def nga barkeelu ci ëpp naa def kuy ñoddi rek la nga yor jotul boo ko fekkee mook taalibe yi doo leen xàmmee waaye Cheikh Ibrahima sa maam sëñ Moodu Mbenda Fall ay sa maam waaw sëñ Moodu Mbenda Fall mooy sa maam ak xatan barke maam Cheikh Fall da ngaa gore rek fu la fekk yaa ngi ne ngirim waaye koo gis muy ñot di lam yor a jotut ki jotle fi fi mu ne xirim la naan xirim yor lu jot Fall da jot jotle waaw mënta ñàkk mën ngaa jàllale kat mënta ñàkk bismillaahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki taalibe yi noo leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Mut Fall Mbenda mi toog jotaay maam Cheikh mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu bu baax mbokki taalibe yi fi teew nag di di ci teg di ci jiital suñu jëwrin sëñ Mortala Sall mi nga xam ne moo fi jëwrin sëñ Touba mën nañ ne daanaka moo fi am sëñ Touba di nuyu taal taalibe yëpp nag fi mu toll moom daanaka xol bee fees ba kàddu yi mënut a jóg waaw xanaa dañuy def ñaan rek ni ma ko waxee Baye Assane ma mënut ñàkk nan def ñaan rek ñoo ngi sant ñëpp daal di sant ñëpp di ñaan tamit mboolem koo xam ne aaju indi nga ko fi Cheikh Ibra fajal la ko ndax borom bis bi mën na lépp waaw man moom bir na ma ni fépp fu ñu koy defee rek teew na fa ndax li sëñ xaal li tax mu def ko du asaar waaw loolu moom amu ci lu may sikk sàkk kon mboolem képp koo xam ne teew nga fi yàlla na sunu borom fajala say aajo ci barke maam Cheikh Fall Lambaye Mourideen waaw nañ def ñaan rek barke borom Tuubaa